c'est bon ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay bu baax a baax. ñu bàyyi la rek nga présenté ak internet yi même bu nekkee si ñun xàmmee nañ la. waaw man la man la aw Ba eh, ñu gën ma xam ci Eva ma nekk actrice comédienne waaw. tey Yaawa Rassoul ñëw woote nga ñëw bokk ci invité mi seen relation yow ak Yaawa. nag wax dëgg yàlla nit ku baax la nit la bu oyof nit la boo xam ne tamit bu wootee c'est très normal mu demee nii parce que tamit même bu dul dara du dara tamit ñoo bokk aar bi ñun ñëpp ñu nekkandoo ci mu rafet beneen bis topp ñu bokk koñ bu ñu dëkk te sorewuñu dara donc c'est très normal bu xewlee tey ñu ñëw euh, mu rawatina nag mu defee ko fii nga xam ne moom mooy kër shérif bi donc c'est très normal pour ñu teew fi parce que Tidiane beeg Laayeen beeg xaadir bi tey képp ku ñu képp ba ngeen fi ñëwee képp koo xam ne rek ci tarixa yooyu nga bokk fekk nañ leen fi donc duñ def lu dul di ko rafetlu wax dëgg yàlla. changer les points euh, bi mu ko doon defee changer dress code changer li nga xam ne moom lañ ko doon gisee ci appel tey est-ce ci critique yi la gën a tenir compte wala nekkul ne dafa jàpp ne bu ko defee fi nga xam ne mooy këram mu am yeneen effet négatif yi amoon daal. waaw man nag jàpp ma lool de li ma jàpp rek mooy que kenn ku ci nekk tey. amoon lu amoo lu ëpp sa sëriñ kenn ku ci nekk amoo koo xam ne moo ëpp ki nga bokkal tarixa donc fi mu ko jëlee ak fi mu ko defee yëpp benn la pour man wax dëgg yàlla loolu sax yaakaar naa ne ñenn ñi rek ñoo ciy am seetlu mais man jàpp ma ne moom am na seetlu ci loolu wax dëgg yàlla donc fi mu ko jëlee ak fi mu ko indi yëpp benn la parce que da koo jëlee këram indi ko kër sëriñam te yaakaar naa ne loolu sax mooy li gën te mooy li baax tamit wax dëgg yàlla loolu moom gisuma ci benn affaire boo xam ne war na mën a grave vraiment aussi message de lancé nañ ko ci lancé nañ aussi stabilité parce gis ci TikTok bi xale di wax lu leen saf ci yi yéen ngeen nekk ay porteur de voix ban lenn lu dul lu dul lu dul jàmm jàmm moo ko gën beneen bi si topp mooy que ñun ay ndaw lañ te ay xale lañ. donc lu nekk suñu kanam moo ëpp li ñu li nekk suñu ginnaaw donc nañu rayante pour lu nekk ci suñu kanam rayante bi mooy jàmm ak salaam parce que fii nag dëkk la dëkk boo xam ne wax dëgg yàlla dëkk diine la mais dëkk lislaam la te nañu xool ci lu baree baree baree bare am na dëkk yu bari yoo xam ne boo fa demee ay musiba dafay am mais fii toujours kilifa diine yi yi fi nekk ak kilifa aada yi fi nekk ak nit yu baax yi fi nekk moo tax chaque jour yàlla daf ñuy dimbali ci lu bare baree bare donc loolu la mais amul leneen loo xam ne wax dëgg yàlla nag mooy loolu te yàlla dimbalee nañu lu bari li ñu yàlla dimbalee mooy que fii dëkku diine la te dëkku lislaam la donc sant yàlla bu baax a baax lu bari lu bari rek comme niñ ko daan defee rek yëngal gësam rek tubaarika la ku ci woo ba ngoon jot rek après ñu jox la ndog lu duun ndog lu neex ndog lu diis tamit waaw kooku moom wax dëgg yàlla lu ñu wax ci moom rek waxaat la parce que kooku àddina bi yëpp xam nañ fi ma jëlee mais àddina bi yëpp xam nañ tamit fi ma yóbbu kooku sama papa la sama xarit la nit la boo xam ne tamit wax dëgg yàlla ni mu mel rek la mel donc xaw ma ñànku mais yaali laa xam li may li may li ma yàgg di wax ndax euh, nit la boo xam ne dafa jàpp ci sama carrière bu baax a baax a baax a baax barke alxuraanil karim dama daan toog sax des fois bëgg bàyyi mais bu ma ñëwee ci moom rek après daf may jàppaloo donc ma koy ñaanal yàlla ma profité waale ci li ma nekk nii di ko ñaanal yàlla moo xam li mu bëgg yàlla na ko suñu borom defal wax dëgg yàlla nit ku baax la nit la boo xam ne tamit jàppale na ma bu baax a baax mënu ma sax wax ci moom yàlla xam na ko waaw loolu jàppee ma ko dara ah, festival la te festival ku génn ku génn ci dëkk bi yaakaar naa ne di def 4 jours au 3 jours euh, euh, nga nga nekk ci nekk ko ci benn dëkk. donc bu ñu mësaan nekk tamit ñun ñëpp ñooy tëdd comme troupe bi yëpp donc bu ñu demee ñii dañuy tëdd fii jigéen ñi tëdd fii góor ñi tëdd fii donc loolu moom. jàpp ma ne am na lenn loo xam ne am na loo xam ne am na ci wax dëgg yàlla parce que nit la boo xam ne yàgg nañoo protéger nit la boo xam ne tamit suñu nit la mais it suñu xarit la bu lépp jàllee. waaw wàll boobu noonu nag man mosuma am commentaire bu négatif wax dëgg yàlla ma ciy sant yàlla bu baax a baax mosuma gis benn commentaire boo xam ne bu ma tëddee dina ma teree nelaw Eva dañ laa bëgg Eva nangam Eva sangam mais sant yàlla rek ndax lépp tamit yàlla la parce que moom mooy xool ku ko neex mu def ci moom lu ko neex donc santaat yàlla bu baax a baax waaye man moom commentaire TikTok wax dëgg yàlla mosuma cee jot benn commentaire boo xam ne tere na maa nelaw lu négatif la donc ma ciy santaale sénégalais bu baax a baax a baax parce que lépp nu ma mel rek ñoom la parce que kuñ ne yow la rek yow la waaye buñ ne du yow it bu ci yàlla àndoon it du doon yow parce que foo génn ñu yor seen jalu xeer tamit bu boobaa bopp bu toj rek nga ciy jëlee donc maa ngi sant sénégalais yi bu baax a baax waale di leen ñaanal ci appelu Baye Laye bi ñoom ñëpp yàlla defal leen jàmm. awa ñu gis ne yi dañ la ciy nemmeeku lu bare bari parce que bu Touba wootee da ngay wuy ji récemment sa xarit sa doomu nday di Mame Ndiaye Savon woote woon li nga xamante ne euh, moom moo di Kazu Rajab nga ñëw taxaw ko tey yaa awa woote nga euh, taxaw ko lan moo waral li ni waaw di wane ni tarixa yëpp benn la de wax dëgg yàlla amul xaaji ak seen kenn ku ci nekk da nga judd rek fekk tarixa boo xam ne foofu la sa ndey ak sa baay nekk nga nekk fa am na ñoo xam ne sax am na tarixa boo xam ne fekk nañ seen ndey baay nekk ci mais dañoo sentir beneen tarixa ñu dem parce que sëñ Fallou moo ni woon man maay sëñ Fallou waaye képp ko bokk ci sama njaboot da ngay ñëw man suñu waa kër yëpp ay tiijaan lañ mais man maa juddu topp yoonu murit kon waxu sëñ Fallou bi mooy firndeel loolu ba tey moo ni woon képp ku bokk ci man da ngay ñëw donc kon tarixa yëpp benn la fii murit a ngi fi tiijaan a ngi fi laayeen a ngi fi xaadir a ngi fi ñun ñëpp benn lañ parce que ñun ñëpp yàlla la ñu yaakaar ñun ñëpp ci Seydunaa Muhammad lañ jokk donc tarixa yëpp benn macha allah nga nekk ci millier bi di def art bi macha allah di def sa liggéey comme il le faut euh, ba nga ciy dugg metti woon na wala méttiwul parce que des fois aussi tamit yéen ñi nga xamante ne ay actrice ngeen euh, des fois du ñàkk ngeen dégg euh, ay baatu ginnaaw yoo xamante ne ndax am na ci ñoo xamante ne dañ naan ñu ci bari ci actrice yi dañuy dugg ci li nga xamante ne moom moo di milieu bi pour pour pour maanaam jaay li nga xamante ne moom moo di seen image buñ ci amee jëkkër rek paree bàyyi loolu noonu lan ngay wax ñi nga xamante ne dañuy wax loolu ci yéen waaw nag wax dëgg yàlla métier laa ko def comme métier comme ni nit ki di xëyee tey dem toog ci bureau di tamponné ay cachet mag leneen ak leneen man loolu laa jàppee aar bi ma ciy dugg séentuwuma ci dara barke alxuraanil karim mosuma woon yaakaar ne bis dina jot sax ba lii nii di am kon lii nii yëpp aara ma ko may te ginnaaw yàlla tamit gëm gi ma ko gëm moo ma ko may wax dëgg yàlla ma dund ci ay jafe-jafe yoo xam ne yaakaar naa ne defoon naa benn interview ñëpp seetaan nañ ko muy ay jafe-jafe yu métti ma dund ci lu nekk ñu génne ma ñu def ma leneen ak leneen mais teewul ma jàpp xam ne lii suba saako ceeb bi may njëkk jëndal sama yaay ci laa koy jëlee te barke alxuraane karim sëriñ fàllu rek laa yaakaar buy séddale yomal xiyam yàlla bu ma ci bokk saako ceeb bi ma njëkk a jëndal samay ay ci xaalisu aar la jóge donc kon sant yàlla bu baax a baax may wax ñi nekk ci sama ginnaaw bëgg cee dugg ak ñi ci ne nañ ko gëm nit ki boo dee xëy di forme bu sax boo ko gëmee yàlla jàppale la ci lu ma gëmoon la te lu ma jàppoon ne suba dina ma eggale fii la te li nekk ci kanam moo ëpp li nga xam ne moom laa weesu wax dëgg yàlla. sa relation ak sa yaay parce que euh, dégg nañ tout le temps ngay génn di ko wax ba ci sa anniversaire témoignage yi nga xamante ne yu am solo yi nga xamante ne sa yaay euh, def na ko ci yow ne jooyul li nga xamante ne moom moo di doom bu góor yow mi nga xamante ne yow yaa nekk jigéen yow yaa nekk góor tey di ko defal lu nekk sa digganteeg sa yaay lan la awa. waaw fi nga dugg nag wax dëgg yàlla barki alxuraan mënu ma fa wax sax dama juddu fekk ma mag bu góor fekk ma fekk ma rakk bu góor donc moom mu def ma doom bu góor def ma taawam def ma léppam donte man la njëkk a gis mais sama yaay sama xarit la barke alxuraan du sama yaay mais sama xarit la donc nangu naa ñàkk lépp sama na ba mu des moom billaahi wallaahi taalaahi te bu ma yàlla bëggee rek na ma ko fi bàyyil parce que nit la boo xam ne wax dëgg yàlla dafa dafa métti woon trop gisuma kenn gisuma mbokk gisuma kenn mais sama yaay rek laay gis chaque jour tamit mu may gëmloo que ne dina baax donc nit la boo xam ne barki alxuraan mënu ma sax mënu ma sax wax ci moom yàlla xam na loolu noonu donc ma koy ñaanal moo xam li mu bëgg. moo xam li mu bëgg yàlla na ko suñu borom defal parce que ndey la boo xam ne jàppale na ay njabootam ndey la boo xam ne moom moo tax jooy ma dara donc bu ma yàlla bëggee rek na ma bàyyi ak sama yaay. mais laata ngay tàggatoo lan ngeen di waajal ci koor gi ak détracteurs yi nga xamante ne des fois du ñàkk ñuy ñuy wax ci awa euh, ay wax yoo xamante ne moom moo di loolu lan ngay wax loolu lan ngay wax ci loolu. waaw dara lu dul nañu xaar niveau biñ nekkoon bi ko gën a yéeg lañuy nekk. parce que liggéey rek lañ liggéey rek lañ ñu tegee fi ñu teg donc liggéey rek moo ñu war te dañuy liggéey ba xëy dee incha allahu rabi kooru ren gii képp ku woor dinañ la jox ndogu bu duun ba pare jox la ndogu bu neex boo xam ne tubaarikàlla doo ko fàtte ba ba ngay dee donc ma leen di remercier yéen tamit di leen jaajëfal ndax wax dëgg yàlla liggéey bu métti ngeen def te yéen a koy jaayante juste pour nit ñi ñu di leen xam yéen a ngi koy jaayante pour juste tey ngeen fësal nit ki nga xam ne dafa nekk ci aar wala dafa nekk ci leneen ak leneen mu mën a génne li nekk ci moom loo xam ne dencoon na ko ay ati ati at kon kenn du yéen donc maa ngi leen di jaajëfal di leen sant bu baax a baax yen a xam lu ngeen bëgg ci métier bi yàlla na leen ko suñu borom defal maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp jërë ngeen jëf merci beaucoup